mbokk yi ñu leen di nuyu ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bisimilah ci xibaaru tisbaar gi tàmbali kook wàllu politique sëriñ Assane Mbacke ak mboolem doomu aadama yi nga xam ne lu ñu jàppoon ci manifester yi amoon fële ci diwaanu Mbacke ah, niki aljuma ji ñu weesu jébbal nañ leen procureur ci suba tey jile nee nag ñu ngi toll ci juróom benn fukki ndaw ak ah, juróom ah, lañ leen toppee nag bokk na ci amal ab manifester bu tere boole ko kon yàq alali jàmbur kon moom sëriñ Assane Mbacke daal ak juróom fukki ndaw ak juróom ci jamono jii muy àddoo ngeen di teewlu kon ña ca loxol procureur yu tey lu jëm ci xibaar bi daañu ci jël soir ci sunu yeneen i jotaayu xibaar euh, kilifa yi nga groupe Walfadjri takku nañu taxaw fa seen i jàmmaloo Babacar Diagne mu jiiteel Sénégal euh, gannaaw ba mu jël dogal kon daal di tëj euh, coupé kon signal Walf TV lu toll ci diirub benn ayubés Cheikh Niass ak ñoom ne daañu bind ñaar recours ngir annuler décision bi ñu jàpp ne kon forfaiture la jaay doole dëgg lay nduru waaye tamit dina dina amaat yeneen ñaari plainte yoo xam ne daañu ko def jëmale ko ci booba Babacar Diagne ah, ci jaay doole ak mbooleem ñi nekk kon ci registre yi ah, di menacé kon ngir taal lii di groupe Walfadjri li ko dawee aljuma ji jàpp dibéer daañu amal ay manifester ah, ngir ñaawlu jërëjëf xooxaan donc amal na ci ab taxaw seetlu ñu teewlu ko. gannaaw bi nga xamante ni coupé nañu wall Walf TV ci ajuma ji yemook fukki fan ci weeru février direction bu Walf Fadjri dal na génne ab communiqué ngir ñaawlu bu baax doxalinu conseil de régulation de l'audiovisuel ak njiitam Babacar Diagne Babacar Diagne mi le nag ak CNRA li ñu xamle rek moo di ni wall Fadjri dafa amal ab couverture irresponsable ci li nga xamante ni moo di manifestation bu waa PASTEF doon amal ci Mbàkke ci ajuma jile tànk kase la ñu jàpp ne Babacar Diagne dafa daldi jalgati xamante ni jéggi li nga xam ne yoon moom la ko may groupe Walfadjri nag de xamle ni du bulet Babacar Diagne mile doonoon njiital RTS di jël dogal yi ni mel ndax moom mile jëloon na ci kanamu situation gi ñu jàppee ne xoqatal la nag groupe Walfadjri daal di xame ni dina teg ay jéego ngir rek jàkkaarloo ak Babacar Diagne ak CNRA ñi amal doxalin gi ni mel ba tax nag alteni jile yemoo fukki fan ak ñett weeru février dinañ déposer ñaari recours ngir rek ñu dal di dàq li nga xamante dogal yile waaye itam dakkal li nga xamante ni moo di coupure signal bu Walf TV ba léegi communiqué bi di xam xamle ni ci wàllum yoon ba léegi groupe Walfadjri dina déposé ñaari plainte benn bi mu déposé ko contre Babacar Diagne pour abus pouvoir beneen bi mu jémmale ko ci ñi nga xamante ni ñu ngi oote ci réseaux sociaux yi ngir rek ñu daldi taal Walfadjri noonee nag la groupe Walfadjri daldi xamle ne jël na ay matuwaay yu doy ngir rek mën a aar kaaraangeem groupe Walfadjri ak ñi nga xam ne Walfadjri daal di xamle ni dina amal ñetti fan yoo xam ne diñuy amal ay yëngu-yëngal ba tax nag ajuma yemook fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février bu 15 jotee dinañ amal ab toogaanu ñaxtu ci buntu Walfadjri samedi yemook fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février dinañ amal ab beneen toogaanu ñaxtu ci kanamu fi nga xamante ni moo di CNRA waaye nag dimanche groupe Walfadjri dina amal ab rassemblement ca place de l'indépendance ngir rek ñaawlu li nga xamante ni mu di gannaaw bi nga xam ne suñu démocrate yi dellu na ko gannaaw groupe Walfadjri nag di woo ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay téléspectateur am waaye bépp sénégalais boo xam ne rek yoon yitteel na la ngir rek ñu mën a amal yi lay manifester. Ibrahima Lissa Faye mi jiital appel de kuréel gi ëmb taskatu xibaar yi nga xam ne ñu jaar ci internet bi lee yëkkati yëkkati kàddoom kon daal di ñaawlu bi la décision teg ci wax ne waxtu jot na kon ngir ñu soppi seen raan ndax dafa màgget euh, Ibrahima Lissa Faye ñu teewlu ko ci téléphone soxna Safiatou Cissé. di ko ñaawlu et eh, vraiment xalaatuñu woon ne quand même Sénégal dina def affaire yu mel nii waaye bi mooy ñetteelu yoon bi ñu coupé signal Walfadjri ak euh, beneen chaîne bi Sen TV mm-hmm. et donc di xam ne que ne maanaam fi nekk ni Rubicon bi moom franchir nañ ko te il faut que ñu arrêté CNRA moom nanguwul arrêté ndaxte mbir mi ngi commencé jéggi dayoo ëpp loxo et boo xoolee Walfadjri li ñu koy reproché mooy maanaam dafa def live couverture en direct bu manifestation te presque bu nekk yaa gën a couvrir émeute presse bi yàgg na wax en tout cas ci ay tension yu am Sénégal bu tey la ñuy tere pour mu wax ci li ci am ba am mooy na ne maanaam CNRA dafa xëcc charte yi c'est-à-dire loi bi surtout code de la presse bi nga xam ne article deux cent dix bi dafa ne balaa ñuy tagg signalu benn organe am na ay jéego yu jiitu d'abord jéego yu jiitu mooy lan mooy jox la mise en demeure fekkente ne obtempérer mu def la avertissement bu dee nag aussi euh, dafa dafa li ñu la wax nag boobaa nag signal bi doo ko yooyu ñu nit da cee amul CNRA dafa jékki-jékki rek dagg signalu Walfadjri mu nekk lu ñaaw la et vraiment loo xam te ne kenn mënu ko bàyyi mu jàll képp kuy démocrate ci réew mi Ibrahima Lissa Faye askan wi ñoom yëkkati seen kàddu daal di ñaawlu décision ba nga xam moo tukkee ci Babacar Diagne di saako daal ngir lu ñu mel ñu dakkal ko ndax lii moom jaay doole dëgg lay ñëw te war ñu koy bàyyi mu jàll lenn ci askan wi teew leen ci micro Mamou bi Gassama waaw rajo doon na lu am solo parce que rajo moom mooy jottali nit ñi ñi nga xamante ni ñoo ngi nekk ci bërëb yu sori rajo moo leen mën a xamal li nga xamante ni moo xew li gën a gën a am solo ñun ñu ci ñoom duñu tàmm loolu à chaque fois su amee benn événement je pense que duñu bëgg di dagg euh, signal bi alors que loolu baaxul ci dëkk. Sénégal warutul couper benn signal benn signal. je suis pas je suis apolitique je suis apolitique mais population bi ah ñu war a am des des informations à temps réel et de des des bons des bonnes informations. seen liggéey vraiment vraiment am lu daal lu ci wax. comme d'habitude rek comme euh, Sidi Lamine ak ñu ko doon wax rek la fi waaw il est là pour le peuple et je pense que liggéey bi euh, ñu leen di ñaanal ah, ngeen di continuer def seen liggéey malgré les hauts et les bas. signal bi kenn du ko coupé waaw ñu ngi koy nakkoorlu bu baax nag te war ñu ko coupé quoi waaw ñu ngi ñaan nag nañ ko gaaw delloo si quoi. Walfadjri waaw seen liggéey rafet na trop waaw kontaan nañ trop si ñoom. li ma jàpp dafa mel ni daal ku mu am ndey ku mu amul ndey la. dafa nekk ci réew mi di jaay doole lu ko ku ko neex mu ànd ak yow loo def mu ne baax na ku ko neexul loo def mu ne du noonu. di daal jàpp naa ne seen liggéey lañ def te fu mu toll ci meilleur télé yi ci la bokk waaw ñu ko suivre ak tout le moment nag ak tout le temps waaw waaye dagg signal bi moom jàppoon naa ne warutoon a mën a nekk. Walf aussi rajo askan bi la peut-être dafa am lu ñuy nëbb loo xam ne ñoom bëgguñ mu feeñ Walf di ko feeñal mais lu ñaaw la du kenn rafetlu parce que lan moo tax. mooy la ñuy neb booy bañ wal fajri di ko feeñal askan bi dañ koy xam avant wal fajri c'est que ñu ngi ay téléphone soxna si dara mënuñu reer loolu day yokk ñaawteef quoi maanaam lu ñaaw nga dollu ci ab ñaawteef comme lu mel noonu la. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ni ko nangoo ci leen ci askan yi di joxe seen xalaat jëmale ko ci décision bi nga xam ne ni mu ngi bàyyeekoo ci Babacar Diagne ak njiité réew mi ak Sall kon daal di coupé signalu groupe euh, bu Walf TV. Euh, lu jëm kon ci xibaar bi daañu si jël sax incha allah bi ci sunu yeneen i jotaayu xibaar wax ci bëccëg bi nga xam ne ni moom la àdduna gépp di màggal jagleel ko wàllu rajo mu doon nag bëccëg bu am solo yóbbee ñi nga xam ne acteurs yi yëngatu ci rajo communautaire yëkkati seen daal di fësal jafe-jafe yi nga xam ne lu ñu jànkonte seen wàllu liggéey ba tax sax ñuy woo collectivité locale yi muy maanaam maire yi ñu gën leen jàppale daal ci wàllu koppar ndax ñoom daanaka ay école de formation lañu sunu xibaar yi ñëw daa ngeen ci dégg leer yi nga xam ne moom lañu ci indi altine kon ji yemoo fukki fan ak ñett ci weeru février moo di bëccëg bu ñu jagleel wàllu rajo bii nag di fukk ak ñaareel bi la édition ñu koy màggal tax ren ji liñ ci jàpp mooy jàmm ak rajo askan nag joxe nañ ci seen xalaat ñu teew leen ci micro soxna moom euh, Maytana Mbana. waaw rajo doon na lu am solo parce que rajo moom mooy jottali nit ñi ñi nga xamante ni ñoo ngi nekk si bërëb yi sori yi rajo moo leen mën a xamal li nga xamante ni moo xew li gën a gën a am solo ñun ñu ci insisté mooy rajo yi ak télévision yi. ñoom ñëpp ñu taxaw pour jàmm ci dëkk bi ak jàmm ci population bi di leen censurer ba nga xam ne tey population bi ñoom ñëpp parce que kenn ku si nekk day déglu information yi xew. kenn mënu woon ne defuñu seen waraf quoi mais rajo ak télévision ñoo yem li ñuy liggéey ci réew nit loo xam ne ne waxukaay la wala mu nekk lu ñuy seetaan boo fay génne da nga fay loo xam ne dafay jariñ askan bi mais pas lu lor askan bi parce que li ñuy wax message am na mais porteur du message dafa am solo aussi. c'est pas n'importe qui moo war a wax parce que li muy wax ñu xool ndax loolu moo war a nekk jamono jooju waxukaay bi donc wax dafa am solo boo nga xam ne ni muy nekk ci rajo muy nekk télévision ki koy jàllale na nekk nit koo xam ne nit ci jàmm la parce que jàmm dafa am solo ci réew. ma ne a war def information juste et vrai boo gisee ku naa fex nga ne yow mi naa fex nga boo gisee ku baax nga ne kii li muy def baax na mais bala li ngeen nëbbu jëf voilà ce que benn fan ci weeru mars ci lay tàmbale jëfe waajite gi mu soxol yaas bi lee ndajeem xelukaay jëriñ bi ñu doon ni ki alxames ji génn occasion la woon ci njiité réew Macky Sall kon mu daal di adopté loi bi lee mu nag la kuréel waaye la euh, mbir yi am suivi maanaam daal bu ñu jënk si dogal bi waaye nañu ko topp ba borom kër bu ne daal di wàññi loolu nga xam moo di jógal yaas bi Alassane Sène moo yëkkati kàddu yu ni mel ñu teewlu ko si téléphone Mamou Diaby Gassama kii dañ ko doon nekk boobu ba léegi yàgg na boobu ba parce que yaakaar nañ ni bi yoon au na moom bi nga xam ne dana baax ndax loi buñ dee wax loi nañ bi nga xam ne mooy wàññi loyer yi yàgg na depuis quatre soixante dix sept quatre vingt et un deux mille quatorze et cette fois ci deux mille deux ah toujours rek bu ñu waxee def alors vraiment locataires yi duñu gis seen bopp si yëf yi parce que entre temps bailleurs yi dañ doon a ak ay subterfuge pour génn nit ñi wala yokkaat ni ñu leen neexee mais cette fois ci comme am na commission de régulation des loyers day centraliser tout alors donc bala ngay dugg si kër daa foofu ñu jox la benn fitis bu waree nit kii prix bi da war a dugg lii da ak lii alors en tout cas la commission de régulation sont là en tant que gendarme pour la défense des locataires et des bailleurs au moins loolu xëy na cette fois ci foog nañ daal xëy na yàlla dana si def mais nag état bi daal moo moo amee tëgal bu yem moom daal moo mën a fexe rek ba nga ni lii xam nga li mel ni man ak yow kenn ne kenn si dara état rek mën a taxaw ndax dañ il faut que nit ñi di respecté li état di te ba pare nag ñu am évaluation ndax dara boo ko defee da boo demee ba sa kanam da ngeen di taxaw ngeen xool fu ngeen si toll alors cette fois ci daal ñun daal yaakaar nit ñi bailleurs si def yërmande locataires aussi di fay comme il faut waaw ah, bu boobaa coow du jib daal ñun daal loolu ñu yaakaar mais attendons de voir donc loo xam ni premier daal nous applaudissons des deux mains. am njàng amul tey ji ci lycée bu Mbàkke ñi nga xam ñoo di ndongo yi dañoo xëy tey ji wàcc ci mbedd mi génn seen moroom ndongo yi la ñuy sàkk mooy seen nattango yi nga xam ne li jàpp ci manifeste ga amoon kam ca Mbàkke ni ki aljuma ji génn te seen yoon nekk ci ñu daal dañu bëgg ñu bàyyi leen euh, am na ci nag ay jàppante yoo xam ne mekku nañ ko fa euh, mu doxoon seen digganteek takk der yi dañ ci jël soxta ak Mamadou Makhtar saar mu ñu toogal foofee ca diwaanu Mbacké euh, pandémie nag wuréegul ci juno gi dox ci diggante Bocar Samba Dièye ak banque bii di Attijari Euh, dogal bi tribunal grande instance euh, hors classe bu Dakar jëloon daal di jox dëgg Bocar Samba Dièye euh, sàkku ca banque bi mu fay ko ab ndàmpaay bu toll ci fukki milliards ak benn suñu koppar dogal booba yoon mu jéem a koy kaase wane ne benn dërëm banque bi ameelu ko Bocar Samba Dièye yóbbee waa AXIF jóg di koy ñaw teg ci wax ne mbir mi duñ ko bàyyi mu jàll daañu lëkkaloo wookaay yi day góor gi su ko defee ñu daal di déposé ab rabat d'arrêt Famara Ibrahima Cissé moo wax ci turu AXIF ñu teewlu ko ci téléphone ci micro Serigne Gueye yàgg jàppale CBAO yàgg jàppale Abdoul Mbaye demoon na ba niveau de la banque centrale góor gi moo garanti woon CBAO parce que dañ ko waroon dàq compas euh, Abdoul mbay bi ci boppam yàgg na jëflante góor gi mu koy lebal mu koy fay tey bu ñu demee ba CBAO amul benn këyit parce que leer na ni amul benn këyit mu bëgg nangu alalu góor gi sénégalais yi dañ cee war a taxaw jàppale ko ci ñëpp xam nañ ni banque boo fa nekkee bor boo fa mënta am danañ la signaloo këyit bu leer nañ waaye non seulement bi dafa amul këyit waaye dafa dem soxlu ay nit ñu ñëw ci góor gi comme jàngul français ñu jëm ko signaloo këyit te këyit boo bu ñu demee tribunal tribunal génne na ko dàq na ko xamal leen ni yoon mayu nga signaloo nit këyit goo xam ne mënta la ca ne protocole boobu nag waraloon tey ñu teg daan CBAO ne da ngaa jaay alalu góor gi ci naka su yoon yoo xam ne CBAO da ko war a fay góor gi tey onze milliards taxaw bëgg a dellusiwaat pour bi nga xam ne juge tase na ko juge nee na ko bii baaxut ñu bëgg def benn jugement par défaut boo xam ne góor gi fekkewu góor gi jotul convocation ñu juge ko ci gannaawam ne dañuy kase protocole boobu yëfu tappale yëfu ger boo xam ne CEDEAO ci la dëkk suba ak ngoon avocat wu Bocar Samba Dièye ñu ngi def rabat d'arrêt parce que banque bi ñaari appel la def yu bokkul bu ci njëkk bi kenn enregistré ko grève bu ñaareel bi kenn bindu ci ni day annulé premier bi donc ñaari appel ci benn procédure mënta ne pour même euh, pour moment donc loolu en droit dafa annuler son seen droit appel appel boo ko defee ñaari yoon te bokkul te bu njëkk ba bu mujj bi annulé wul bu njëkk ba loolu da koy annulé d' office. élection présidentielle yi ñuy dëgmal doon yitte loolu militaire ak responsable PDS nekk foofee ci diwaanu Kaffrine dañoo profité ci lancement njaayam seen carte yi. daal di artu njiital réew Macky Sall xamal ko ni ko bu amee ku dul bokk ci élection présidentielle yi di ñëw du kenn ku dul moom te la bañaloon Maître Abdoulaye Wade du moom lañ koy nangul sàkku daal mu delloosiwaat Karim Wade ndax mooy seen candidat ci élection présidentielle yi di ñëw dañuy dem ci diwaanu Kaffrine fekk fa Badara Ndaw militant yi boot ci parti démocratique sénégalais bu maître Abdoulaye Wade ñu ngay dajale seeni mbooloo ki seeni kaake di jaayat seeni carte ngir waajal ki nga xamante ni moo di Karim Meïssa Wade ngir mu dikk jiite mim réew di Sénégal Moussa Cissé ancien député ay li ñu fi indi muy njaayam carte li ñu gis fii mu génn fi ci carte ak ay secteur bëri na xàgg na foo xam ne seenu ñu ko fa Karim dañ bëgg mu ñëw te bëgg nañ balaa mooy ñëw ndax wax naa leen fi léegi li dal suñu parti dafa bëri côté yu baree bari ba demee responsable dafa nekkoon dem léegi te bëgg na balaay wàcc fii fekk fi parti bu organisé nga xam ne bu soxlaa Kaffrine xam ne diw ak diw ak diw ñoo fa yore tel poste ay tel poste te am na poste yoo xam ne vide la yooyu moo waral lii ñu koy jaay bëgg koy renouveler balaa muy dikk incha allah bu dikkee bu dikkee ñu di ko def suñu congrès jox ko parti bi Abdoulaye Wade nekk président d'honneur même bu fekkee ci ni ñu ngi xeex lu bon ak ñaawteef ñi la bootu ci parti démocratique sénégalais ñu ngi waajal ñëwu Karim Wade file ci Sénégal waaye tam pare nañ pour xeex lépp ngir kat ki la di Macky Sall bañ a bokkaat ci élection yi la nga xam ne. Macky Sall da ci am ko génne woon réew mi nañ ñu ko delloosi. li woon 2012 du ren la mayoon Abdoulaye Wade du ma ne candidat mayu ko Macky Sall loolu moom Sénégal yëpp xam ne ci commande man ngaa seede loolu bokkul ndax dafa amaat beneen référendum bu fi am ci diggante bi. kon mbir du benn bokkuñ ragaluñ fuñ jëm te ko xam histoire du PDS xam ne PDS ko tey la ko bëgg réew mi la waaye xaqam nag moom ku ko bëgg a jël dana xeex yow. pour dëggal seenu kilifteef ak seenu mat ci politique parti démocratique sénégalais ñu ngi waajal seen bopp waaye tam di wax ne kookule di Karim ni ñibbi si ñu gën a gaaw ci Sénégal ba tax na kat ñoom ñu ngi koy xàllalu ñëll saa su ne rek di gën a jege askan bi di dem di xool ak nemmeeku. Badara Ndaw Kaffrine pour la radio télévision Walf. jaajëf Badara Ndaw ñu ngi koy sant di ko gërëm dalal soxna Mamou Diaby Gassama ci xibaaru bitim réew yi. la yëngu-yëngu suuf bu métti ba nga xamante ni jotoon na am ca réewu ko Turquie ak Syrie ni ki juróom benn fan ci weeru février 2023 daal dina gën ndaxte ni ki tey ci suba nag euh, buñ ci ay bilan officiel nag lu toll ko 35 225 doomu seeni bakkan na lu toll ko 31 643 doomu aadama ñàkk seeni bakkan ca sud euh, Turquie buñ sukkandikoo ci organisme république turque bi nga xamante ne moom mooy taxaw ci lépp lu ñeel wàllub euh, jiyee ñi nga xamante ne ñoo ngànk gouvernement ñoom sax jot nañ lim lu toll ko trois mille cinq aadama yi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seeni i bakkaan ca réewu ko Syrie niki dimanche bi mbootaay xeet yi jot na xamal ni sax ni amaana bilan bi dana doublé. benn ay bés gannaaw séisme bu métti ba nga xamante ni jot na sonnal bu baax a baax réew ko Syrie ak Turquie àdduna wéygal képp di ci yee yàbbi waaye tamit yërëmande bi daal di am fépp lu ci mel ni sax réew ko Turquie nekk ab misaal tunisien ñoom sax dañoo jàpp ne ñu dañoo jege waa turc ak syrien yi ci lu ñeel wàllub feuilleton xarito wala sax lii di ay voyage gannaaw image yi nga xamante ne jot nañ ci teg gët nak nag jëm nañ fësal seeni solidarité ca Gabon rencontre politique ba nga xamante ne kujje politique ba yàgg na di ko xaar boole ci sax président Ali Bongo nangu ko tijji nañ ko niki altine ji yem ko fukki fan ak ñett ci weeru février travaux yi nag ko tàmbale ca palais présidentiel ba ci teewaayu kii di Ali Bongo société civile ba ay syndicat ay nitu diine ba ci sax ay ndaw te ñu bëgg a bokk ci boobule daje kenn oowu leen ña nga xamante ne ñoom ñoo jiite ay parti politique ñoom kese ñoom lañ invité ci boobule daje waaye ñoom it nangu nañu bokk ci boobule lool jërëjëf soxna Mamou Diaby Gassama ak Abdoulaye Bopp ci li ci yéenekaay yi dal leen ak jàmm ñu bari ci askan wi newatuñ ci jàmm ndax baatu askan wi di Walf TV mi sénéra coupé ajuma ba tey fas yéene ko wéyal ci lu tolloog juróom-ñaari fan tax ñu bari ci askan wi xëy ñaxtu Walf Quotidien dogal gi ni mel tàmbale jur ñaxtu ci askan wi rawatina groupe Walfadjri bu ñu sukkandikoo ci PDG maître Cheikh Niass mi xamle ne Walfadjri fa mu woon ba tey la ne soppiwul lenn ci doxalinam Walfadjri farul ak nguur farul ak opposition askan wi moo ko tax a jóg maître Cheikh Niass ne Walfadjri ci déontologie ak expérience lay dox dal di fàttali ne la Walfadjri wone càmb Mbàkke tax sénéra coupé signal bi maître Cheikh Niass ne na Babacar Diagne xam groupe Walfajri jóg na taxaw ngir ñaawlu dogal bi sénéra jël daañ ko ñaxtu doore ko ajjuma ji ñu jëm fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février gi ñu ne bu 15 jotee maanaam saay bu ñu jullee tisbaar ba noppi daañu amal toogaanu ñaxtu fii ci màkkaanu groupe Walfajri front de terre buñ ca noppee samedi ga daañu amal beneen toogaanu ñaxtu bu 10 heures jotee ca màkkaanu sénéra tolli ca dimanche fukki fan ak juróom-ñeent ceeru février gi ñu ne groupe Walfadjri dina amal tendefalu ñaxtu ca place de l'indépendance ngir ñaawlu ni démocratie tumuranke ci mim réew rawatina liberté de la presse Walfadjri yemu fa fas yéene na kalaame ci yoon Babacar Diagne ak kalaame ci yoon képp ku jóg ngir fitnaal wala boog songu Walfadjri ay kàddoom ci biir yéene kaabidi Walf Quotidien Ahmed Khalifa Niass xamle ne daañu kalaame ci yoon Babacar Diagne ndax buur aayul dag yaa aay njiital Pastef xamle fekkee ne France 24 wane woon na ko ko ci Ousmane Sonko ne lenn dong moo tax a jóg nguur gi maanaam noppiloo groupe Walfadjri Guy Marius Sagna ci biir yéen a kaabi xam le ne jafe-jafe Walfadjri mooy jafe-jafe askan wi ndax ci jamono ji am nañu lu leen manqué lool ci seen bu ñu toogee ab diir te mënatu ñoo seetaan Walf TV Guy Marius Sagna ne lenn dong ci nguur gi jublu maanaam chantage ndax boo bokkul ca ña leen di xalamal daañu wut ay pexe ngir sànk la Guy Marius Sagna ne neexul ba neexul waaye groupe Walfadjri yeyoon na décoration Khalifa Sall gis ne tey ji nguur gi dafa am lu mu bëgg a nëbb askan wi tax mu ne kama ci Walf TV Abdourahmane Diouf bu awalee gis ne tey nguur gaa ngi sànk ab télévision privée ci jamono joo xamante RTS ma ngay wone seeni meeting Thierno Bocoum ci Walf Quotidien ne li xew jaaduwul ne daañu jóg xeex ko yéene kaabidi yor yor bi di ñu xamal ne Ousmane Sonko jot naa delloo njukkal El Sidi Lamine moom jiital Pastef mu ngi foon samedi gi ñu weesu ngir masawu groupe Walfadjri Ousmane Sonko gis ne li xew injustice la bu ñu tegaat groupe Walfadjri te duguleet daal di xamle ne képp ku newul ci a saxal démocratie teg ci bugg a noppiloo presse bi ci journal bi di yor yor bi njiital Pastef xam le ne tey ñu ngi naan benn million ci ay abonné ci chaîne YouTube bu Walf TV waaye lu toll ci juróomi million yu abonné ci chaîne YouTube TV moom la bëgg ngir tontu li fi xew keneen ku yëkkate ay kàddoom di taskatu xibaar bi di Omar Diouf Fall mi xam le ne waxtu wa jot na ñu dàkkal doxalinu Sénéra mi mu ne deful lenn lu dul gàllankoor réew mi rawatina gàllankoor liggéeyu taskatu xibaar yi réew mi quotidien ne gàllankoor tàmbale bi laaj daal di samp ana lu tax nguur gee ku jéeg bi kenn ku ne ci ñoom ma ngay wut confrontation maanaam jàmmaarloo Alioune Tine ci Vox Populi ne tiit na lool ci tolluwaay réew mi ndax saay bu fi jàmmaarloo amee mun naa jur musiba ay kàddoom ci Vox Populi moom Alioune Tine daal dina sàkku ci son Sonko ngir mu tegandi bépp yëngu-yëngu politique ci suuf te jéem a bu ci waxtaan Alioune Tine daal di sàkku ci njiit réew bi Macky Sall ngir mu soppi doxalin te bañ a bunduxataal way politique yi te fexe ba dialogue dox ci diggante nguur gee kujéeg bi maanaam ñu waxtaanee réew mi doon lu soxal Alioune ko deful réew mi mun naa mujjee ci fitna ñu fekkee ay kàddoom ci biir yéen moom jiitu réew mi Macky Sall mi xam ne du bàyyi kenn mu yee fitna ci mim réew wala boog bëgg def naka sudul noonu ci mim réew yéen a di le point info xëy dalal Pape Modou Fall njiital dégg ma wóor xam le ne njiitu réew Macky Sall réew mi ci élection présidentielle yu ndax lim fi jot a liggéey ci ay projet yu bari lool te wute moo xam PUDC PUMA PSEJ ba ci xewum ndaw ñi def ko ci PSE bi rawatina bourse de sécurité sociale ba ci yeneen ak yeneen tax Pape Modou Fall njiital dëgg moo wóor ci ndaje politique ga mu amal ca Jurbel fa xamle ne waxtu wa jot na askan wi gungewaat njiitu réew mi Macky Sall jëm ci Sénégal émergent horizon 2035 jeune cabi di turbine ne ku wax feeñ Idrissa Seck ak na mu waxee ca Thiès bëgg naa wutu njiitu réew mi Macky Sall ci élection présidentielle yi ñuy jëm bu ñu sukkandikoo ci ay fokon yanne ca pale ba maanaam ay jegeñaale njiitu réew mi Macky Sall ci jamono ji jóg seen kàddu ci réew mi Macky Sall xam le ne Idrissa Seck munta gagné bureau de vote am ana naka lay gagné réew mi yéene kaabi di le peuple quotidien xëy dalal Mamadou Lamine Massaly yekk na lu mel ne xeme Ousmane Sonko mi mu ne tey njiital Pastef xotti na war ma Tuuba gannaaw yëngu-yëngal gam fa amal ba mu jur ñaxtoog jaamaarloo ca Mbàkke Mamadou Lamine Massaly ne la fa xew jaaduwul jot na yoon def liggéeyam ci dossier Ousmane Sonko Massaly ne Ousmane Sonko doxalinam na ko nguur gi teg loxo laata muy uppi loxo yéene kaabi di sursaane fitna gi tàmbalee nuyoosi ci géew politique bi tàmbale naa jaaxal lool kilifa diine yi wax nañ ci ñu ngi dànkaafu di artuway politique yi ngir ñu jiital jàmm ci mim réew monseigneur Benjamin Ndiaye ay kàddoom ci biir yéenekaay bi jot na ñaax way politique yi ngir ñu bañ a salfaañi réew mi te fexe ba sàmm jàmm ji fi ne ci biir yéenekaay bi di turbine ci di cheikh Nema Aydara di xalif général des xaadr ci gàmmub chérifien ga ñu amal ca jàmm geen foofee ca diwaanu Thiès fa la yëkkatee kàddoom daal di ñaan jàmm ci réew mi dànkaafu itamit képp ku fi bugg a yee fitna du la jig xalif général des xaadr ci di cheikh Nema Aydara gis ne waxtu wa jot na sàmm suñu gaal gi bañ mu suux seen loxo ci lu mun a jëmale réew mi ci kanam rawatina sàmm li fi ne di jàmm ji ñu nawee Sénégal yéen cabinet le mandat di ñu xam leeg tournée njiitu réew mi Macky Sall fale ca diwaanu Thiès yéen cabinet milliards yañ fa jot a xayma département bu Mbour dina ci céeru jëm ci kaaraange Petite Côte yéen cabinet l'info ne bokk na ci beneen projet goo xamante ne njiitu réew Macky Sall soobu na maanaam ubbi ko di ñaareelu central bu Malicounda yéen cabinet li quotidien ne googule centrale bu Malicounda dina yegg si ci waxtoom dina gën a taxaw askan wi ci ñoo am bu doy yéen cabinet ci googule ndaje njiitu réew mi faa jot na faa jaajëfal kii di njiital Senelec di Pape Demba Bitèye gannaaw centrale électrique gañu inauguré ca Malicounda yéene kaabidi stade xëy soobu ci wàllu football di ñu xamleek Nampalis Mendy mi dugal bii démb yéene kaabidi ñu fàttali ne lu ko dalee septembre ba tey kii di Nampalis Mendy mu ngi soog dugal bi yéene kaabidi suñu laam xëy dugg ci lamb ji ak combat gi doxoon démb ci diggante Tafatine ak Bombardier yéene kaabidi Tafatine moo ca jëlee jële ci arène moom B52 yóbbu ko ci hôpital principal ngir mun koo faj jërëjëf Abdoulaye Bopp ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax Fatou Bintou Fall mi fare woon ci xarale gi ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba ñu leen di ñaanal mucc gu sax te ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur sas ko doog sunu gaal ñu yendoog jàmm